jamono yooyu nag moom jaam daa bari woon te bari àtte moo tax nga di ko gis ci téere yi lool lool daa wax ne buñ dee jaayante jaam li ñuy wax xuxda nangu nañ ko xuxda mooy ñetti fan yi biñ ko waxee ba jaayante ko itam li fa ñetti fan yi jeex lu ci xew rek jaaykat bi moo garanti jëndkat bi moom moomagul dara benn ñu sàkkante ko nag ca ba ñuy jaayante mbaa mu xew ca béréb booba lu ci mën doon rek su boobaa ñu daal di ko wéyal waaw nee na xuxda ñetti fan mooy ñu wane ne li leen ñu am ñetti fan gannaaw buñ jaayante ba noppi lu ci xew rek ki doon jaay moom la ci xewal ni ki bu dee woon sax moo ñàkk waaye ki jënd moom moomagut loolu nag nee na lu ci xew yooyu jamono rek kon moom ma doon jaay moo gàddu loola te doon jënd day mel ni moomagut xamante ne mën nañu ko yàggal ba mat at bu fekkee dañoo ragal ak ngaana feeñ ca wala ak ndof wala siti ndax daa am yoo xam ne day feeñ ci ay jamono te feeñ ci ay jamono li ki am na ñoo xam ne seen seen ndof mi ngi leen di feeñ jamono yi ñamte ak yu demee noonu kon ndegam loolee ñu ca ragal muy ak ndof mbaa ngaana mbaa siti mën naa feeñ ci ay jamono te du feeñ ci ay jamono buñ defee xamante ne maanaam jiru at ba at ma dee te loolu feeñu ca ah ñu xam ne kon loolu da ca amut bu ci naree feeñ kon dana feeñ ca jiru at ma. kon nag buñ ci ragalee yi mën nañoo dogu ci ne buñ jaayantee ba àggal ba keroog muy am at lu ci xew rek moom miy jaay moo ñàkk waaye moom miy jënd moom yoonam nekku ca salam lu am solo la maanaam mooy kii jaay moom li nga bëgg amu ko waaye jubóo ngeen ci njëkk sàngam nga wax ko li nga bëgg nag mu wutal la ko jox la ko ci délai sàngam kon loolu nga xam ne kon njaay la moo xam ne njëg day jiitu la ñuy jënd fi tool yi nangu nañ nga jubóo kenn ci jox ko ak njëg buñ demee ba nawet bi jeex ba gerte ñor mu jox la nangam ci gerte mbaa bu dugub ñoree mu jox la nangam ci dugub mbaa bu sëb ñoree mu jox la nangam ci sëb moom daal lu man doon loo xam ne nii ki ngay waxal mën na koo am rek ngeen sàkk waxtu woo xam ne ca la war a amee mën ngeen a jubóo ci njëg goo xam ne moom ko koy fay bu ci àggee nag yow da koy fay moom léegi bu ko defee moom bu ci àggee mu jox la ko. boo dee xool ci ñaari téere addis yi gën a wér ci téere addis yi. ñëw na ca ku baax ki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax ne man aslama fal yuslim fi kaylin maalumin wa wasnin maalumin ila ajalin maalumin moo tax kon ñu xam ne salam moom dara nekku ca boroom xam-xami fiq yi nag bu ñuy gëstu addis boobu di ko saraa dañuy wàññi sart ya ba mat juróom ñaar ba ci jëkk mooy dañ daal di joxe njëgg mbaa boog luñ ko yeexe yeexe bu weesu ñetti fan ñetti fan nag moom buñ ko ko yeexee du aay doon ci sax daa sart ne bala ma la koo jox bala ma laa jox njëg yu mat ñetti fan it du wàññi dara moom benn sart ngoog ñaareel bi mooy lam koy wutali bu mu nekk jëmm ju ràññi ko joo xam ne diwa ko yore mbaa béréb sàngam la nekk déedéet lam koy wutloo day nekk lu mu gàddu ci loosam rek wuti ko ba am ko yët ko ko loolu moo tax salam mëni si ko def ci wutlu kër mbaa pàkk ndax ni war a ràññeele bañ xam kër ga mu bëgg mbaa pàkk ba mu bëgg moom bu ñu ko defee rek mu daal di ràññi ko te dañoo bëgg salam nekk loo xam ne kooko dafa gàddu ci loosam rek wuti ko ba am ko waaye du nekk jëmm ju ñu ràññeel ñetteel ba mooy nañ ko sàkkal délai bu mu ko war a yót délai ba nag lu mu néew néew bu fekkee ne dëkk bi ñu ko waxantee bu juboo ca fa la ko war a joxe loola délai ba lu mu néew néew na mat genn wàllu weer marché bi ñëw fi ñëwati fi bu fekkee itam fa mu ko koy joxe du ci jëmmi dëkk boobu waaye fa mu koy joxe daa jege dëkk ba toll ci doxu benn fan rek mbaa lu ni mel ba tey faw rek kon na délai ba mat genn wàllu weer su fekkee nag fi mu koy fayee njëg gi ak dëkk ba mu ko war a joxe la mu koy wutloo du benn sore nañu kon du ñu sart délai bi mag genn wàllu weer moom kay dañuy sart diir boo xam ne daañu mën dem ba ci dëkk boobee mu joxe ko ko foofa rek mu daal di baax ñeenteel mooy loolee mu koy wutloo na nekk luñ mën a am nga xam ne waxtu wu ñu wax daal moom buñ ci àggee dana mën a am bu àdduna doxee nam daa doxee rek daal moom loola dana mën a am loolu mooy ñeenteel juróomeel mooy la muy wutlu nañ ko takk bu baax a baax ci bu dee lu ñu natt ñu wax na mu war a toll ci natt bu dee lu ñuy peese ñu wax na mu war a toll ci peese bu dee lu ñu wàññi mu wax na mu war a toll ci wàññi te it bépp mel boo xam ne bu ci amee dana tax loola war a seer wala loola war a yomb dañ ko ci leeral bu baax a baax ndax ndegam day fay njëg lépp luy tax njëg seer mbaa njëg war a yomb rek war nañ ko caa leeral bu baax a baax juróom benneel mooy la muy wutlu ak lañ koy wutal bu mu doon mukk xeetu ñam bu mu doon mukk itam xeetu wurus ak xaalis ndax bu doonee yaari ñam nga xam ne ñam ñam lay joxe ci njëg di wutlu ñam day mel ne kon jaay ñam jënd ñam te nekkul loxoog loxo moo tax li tax ñu wax ne it bu mu doon yaari kee maanaam bu bu mu joxe dara ci wurus mbaa xaalis te wutlu dara ci wurus mbaa xaalis loolu mooy day mel ne kon weccet wu nekkul loxoog loxo ndax xam nga ne day joxe njëg yi ñu sàkk dele buñ koy wutal na muy wutlu kon nag bu doonee yaari kee yi maanaam la muy joxe nekk xeet wurus mbaa xaalis la muy wutlu doon loola day mel ne kon weccet wu nekkut loxo ak loxo juróom-ñaareel nag mooy faaw dañuy sart la muy joxe muy njëg na wuuteeg la nga xam ne moom lay wut lu ji dañuy bañ la muy joxe muy njëg mu bokk xeetu la muy wut lu ji ni ki mu joxe am xar di wut lu cim xar wala mu joxe gëléem di wut lu gëléem wala mu joxe sareet di wut lu sareet mbaa mu joxe rajo di wut lu rajo moom daal faaw la muy joxe muy njëg ak la muy wut lu ji dañoo war a wuute war ñoo bokk wenn xeet lu may nag ñoo bokk wenn xeet waaye am na lu tax ñu gënante lool lool wala ñu wute ay njariñ lool lool ba nga xamee ne daanaka mënees naa wax ne bëggatuñ xeet ni ki mu joxe fasu course di wutlu fas wu ñuy takk watiir mbaa fas wu ñuy bayee ca tool ya lu mel noonu dëgg la sax ñoo bokk am xeet waaye njariña dem na ba wuute lool lool lool ba def ko lu mel yaari xeet loolu nag bari na booy jàng téere yi ci des moom daañu la andil luy tax la nekkoon wenn xeet soppiku yaari xeet ba nga mën caa salamle waaye nag téere bi téere bi tàmbali rek la foofu la ci yem faaw day aajowoo moom mi jënd mu daal di joxe njëgug la muy wutlu mbaa boog lu mu ko yeexe yeexe nga toll ci ñaari fan mbaa ñett sañ na koo yeexe nag lu toll ñetti fan doonte sax daa waxal kooka ci sart ne ko bala ma laa jox njëg gi nu am ñetti fan koy du ko te koy du ko te baax daa wax ne àpp salam na mu gënal mooy na mat fukki fan ak juróom waaye ahab jooju du rek dañ lay tànn loo bu la neexee def bu la neexee bàyyi déedéet say boo jàpp li gën a wóor rek mooy bu fekkee béréb ba nga ko fayee njëgg la mu war laa wutali loolee nga bëgg te la lay joxe loolee ba tey kon dañuy sart moom ab salam ba na mat genn wàllu weer ni ma ko waxee woon léegi bu fekkee it du ca jëmmi dëkk booba mooy du ci jëmmi béréb boobu la la koy joxe waaye foofa dafa jege mëtul doxum ñaari fan maanaam fu ngi ko waxantee ba juboo ak fam la koy joxe mëtul doxum ñaari fan dañ koy jàpp ne benn béréb kon ba tey délai ba na mat fukki fan ak juróom bu fekkee nag fam lay joxe liñ koy wutloo ak dëkk bi nga xam ne ci ngeen ko waxante woon ba juboo ca soree nañu mat na doxum ñaari fan ba mu ëpp ko kon duñ sart deleb salam bi mat fukki fan ak juróom déedéet moom kay nañ sart rek ab diir boo xam ne da ngeen mën a bàyyi ko fii dem foofee mu la koy joxe mu jox la ko fa te itam na nga dolli ja ngeen sartante ne da ngay daal jóg da ngay daal jóg dem rek mu daal la koy jox bu ko sartante itam da ngeen ko sart ngeen defe ko na mooy daal jóg dem wuti béréb booba ngir mu jox la li nga ko doon wutloo tey dañuy sart fi ngeen di bàyyi ko ak fa ngeen jëm nga xam ne fa la la war a joxe li nga ko doon wutloo nañ mën a takk dox ba léegi bu dee dañ koy war ci oto mbaa ci saxaar mbaa ci xeeti fas yeeg wëccee yooyu yépp baax na ndax loolu ma def na koo takk ne foofu daal ma def na koo dox ci diir sàngam bu fekkoon ne ci géej la it waaye gaal yoo fay dem gaari moteur lañu ba tey des na mën a takk diir bi gaal gi war a dox foofa waaye nag bu fekkoon ne ci ndox ngeen di aw te gaal yoo leen di yóbbu ngelaw rek boo koy ëf muy dem nga xam ne su ngelaw li baree seenub dem gaaw bu ngelaw amut mbaa ngelaw li néew seenub dox yeex lu mel noonu kon boobu sart xëtt na te it ngeen sàttante ne su ngeen di àgg ci béréb boobu rek mu daal di la koy jox fa saasay saasa bu ci sart yi dajee daal moom duñu ne faw na deleb salam ba mat fukki fan ak juróom moom bu doonoon ñaari fan ba ñett ne mu ko waxee it dara nekku ca waaye nag bu benn sart ci sart yi xëttee rek moom saye boo àpp salam ba ngeen def ko fukki fan ak juróom nga seetlu ne bu ca sartee dajee ba ñu ne àpp salam ba mën naa bañ a mat fukki fan ak juróom kon kat moom mi jox si njëg gi muy kii jënd day fay fa saasa mbaa lu mu koy yeex-yeexe bu weesu benn fan lañu waxoon ci man ko yeex ñetti fan dal nay dañ nee na bu fekkee ne bir bi nga xam ne fi ngeen wàqantee salam bi ba juboo ja fa la lay joxe lim koy wutloo ji te it délai ba da ngeen koo gàttal ba toll ci ñetti fan rek ak lu demee noonu mu ne am nañu ne loola dara sikku ca ndegam rek mënees na faa am loola baax na ñenn ñu sib ko ña ko sib moom ndax sibuk araamal la wala sibuk sib rek la yem ci wax jëgën a wóor mooy lañ la waxoon rek bu fekkee ne daal dëkk bi nga xam ne ci nga ko fayee njëg gi ngeen waxantee ko fi fa la lay joxe la nga koy wutloo ji kon faaw rek na ab salam ba mat fukki fan ak juróom bi kenn wàllu weex su fekkee ne nag beneen dëkk la lay joxe li nga koy wutloo te digganteem ak dëkk bii mat na doxub ñaari fan ba mu ëpp ko bu ca boolee sart yi ñu waxoon léegi léegi léegi kon ab salam ba du aajowoo muy mat fukki fan ak juróom ñin ko leerale woon léegi jàppal loolu nag te dañ ko wàcc mooy li wóor wax nañ ko léegi ci sart yi dañuy bañ la ngay joxe muy njëg mu bokk xeetu la ngay wut lu ji dañoo war a wute rek moom leeraloon nan nag ne su fekkee wenn xeet wala itam na njariñ ya wuute wuute ba nga xam ne daanaka doonatuñu wenn xeet kon li ngay joxe ci njëg ak la ngay wut lu ji bu mu doon wenn xeet bu mu doon tam ñaar yu jege lool lool ba mel ne wenn xeet nee na boo koy jox loo xam ne ngaa bëgg bu andil la lu mel noonu ñu bokk wenn xeet kon da ngeen koy bañ a wooye salam bu ñu ko wooyee salam rek mu yàqu kon dañ koy wooyee xaradu kon loo koy jox tam lay delloo si lu toll noonu rek bu ngeen ko wooyee xaradu te bañ koo wooyee salam mu baax waaye nag ci sartu sart ba nga waxan ci xaradu am ca nga xam ne kañuy jox muy yóbbu mooy ak féetewoo njariñ la waaye kay joxe moom du ci am benn njariñ bu demee noonu moom ba ci yaari ñam yi sax wala yaari kee yi buñ ko tuddee xardu mu daal di baax ndax xardu mënees na ko ci ñam ak ñam mënees na ko ci wurus ak wurus mënees na ko ci xaalis ak xaalis ndax mooy rek li nga wax kooka loru na ci loola nga abal ko mu delloo si la lu toll noona ñu yemoo képp ci tolluwaay yemoo képp ci qualité waaye kat bu doonee ñam ak ñam wala wurus a wurus mbaa xaalis ak xaalis mbaa sax xaalis a wurus ñu safaanoo lu mu ci mën doon rek buñ ko wooyee xarab lay door a dagan waaye buñ ko tuddee jaayante wala ñu tuddee ko salam wala ñu bañ a wax dara dara dara mu daal di yàqu ndax day mel ne kon bu dee yaari ñam yi day doon jaay ñam jënd ñam te nekkut loxo ak loxo bu dee yaari kee yi muy wurus ak xaalis day mel ne kon wecciku boo xam nekkut loxo ak loxo